te mooy li gën a euh, seen gis-gis bokk mooy nan lañ mën a fexe bay ñaax soññi politiciens yi ñu respecté suñu institution yi respecté norme démocratie yi nga xam ne moo nekk ci réew mi AES loolu lay gën a jëmale euh, xeexam wala boog loolu lay jëmale message am pour politiciens yi respecté lu mel parti respecté lu mel noonu euh, ngir loolu dana tax ñu gën a sàmm kaaraange réew mi ak jàmmi réew mi waaye AES du force kenn bëggul wax kenn wala muy def loo xam ne dañ lay tegal ne dafa aw nga signaler wala nga def nangam AIS day gis ne loolu euh, du gis-gisam daal gis-gisam mooy ni ñi nga xam ne ñooy politiciens yi ñu respecté norme démocratie yi waaye nag duñ wax li nga war a signé wala li nga war a signé ndax li ñu war a signéloo yaakaar na constitution bi signéloo ñu ko yàgg yàgg yàgg benn parti bu ne bala ngay am parti tegal nañu ay charte yoo xam ne da nga ciy dëppoo mooy jàmmi réew mi respecté loi yi respecté lépp loolu jàpp nañu bu ñu ko defee du jarati ñu naan dañuy signé wala dañuy jëf nangam